d'abord def d' rafetlu parce que des mesures exceptionnelles yoo xam ne état bi jël na ko bu njëkk bi muy 1000 milliards équivalent wu un quart du budget la un budget de 4 milliards du woon lu ñu prévoir beneen bi di 69 milliards mu jëm ci euh, fonds de riposte et de solidarité pour jàppale ñi néew ji doole niñ ko jàngatee mooy rafetlu ko d'abord mais principe bi dafa am ak opérationnalisation bi opérationnalisation liñ ci est-ce que dina àgg fam wara war ak nam fa donc notre recensement bi comme ni nga wax ñom dañu basé sur le registre national unique euh, mu avons une base de données jël nañu aussi ay couches vulnérables ñi nga xam dañu bénéficier woon Mais bourse familiale mais man la première question bi poser moy d'abord ñu questionner les bourses de sécurité familiale so xolé depuis ay at am na ñu ci bénéficier c'était pour lutter contre la pauvreté mais so c'est des mêmes familles bénéficient de ces bourses de sécurité familiale depuis des années sa mënuñu génn ci ndóol cela veut dire que état bi une na forme d'orientation à cette politique sociale moi ñu fexe autonomiser l'autre élément le recensement bi comme wax nga ko deux bases registre national unique mais beneen à la base les les comités locaux nous avons des ciblage Il faut aussi am lu parce qu'il y a des couches vulnérables mais amna ñoo xam ni elles sont impactées par le Covid 19 ñooñu su may wax xam ñan la secteur informel bi supposons ñi nga xam dañ nekkoon ci gare routière ñi nga xam ni comme ay mécanicien lañu ay artisans affaire bi dal leen donc ñooñu aussi ñu jar a bàyyi xel lañu ñu. léegi nag ni ñu composé comité bi ñun rafetlu nañ à la base parce que mbir mi warul jóge rek benn base de données boo xam ni ci kaw lay jóge c'est exactement ce ci nekk defuñu un audit un est-ce que ñi toujours elles sont des couches vulnérables ou non donc li ñu def à la base maintenant pour compléter ce dispositif c'est que la ferheb chef de quartier imamie imam association communauté de base société civile nekk à la base pour temps. mais tànn Il faut obéir à des critères critères nag yi nga xam ni yëpp lañ pour mbir mi law pour mbir mi àgg fa wara ag pour mbir mi jariñ ñam war jariñ mooy les critères de bonne gouvernance critères de bonne gouvernance juroomi ponk rek lay résumer bu gàtt critère d'abord de participation ñi ko war a bokk ñi ko war a fekke ñi ci war a nañ ci bok tant au niveau national parce que gis nañ coow li am ci ceeb bi fani yi li am ci walu transport bi liko indi moy commission bo président de la République annoncé won né day am état am secteur privé am société civile am assemblée commission bo lañ tampagul dañoo gaawantu jox ministère bi plein pouvoir mu attribuer ay marché attribuer def appel d'offre kenn xamul seen condition moo commencé indi coow li nga xam ne nit ñaa ngi wax sax ñoo xam ne ñu ngi bëgg a dund ci corona bi alors que tey corona bi dafa war a nekk loo xam ne tey dafa war a nekk un élan de solidarité nationale ba lépp luñ ci génne mu dem fa mu war a dem donc critère de participation ñu war a bokk nañ bokk équité équité bokkul ak égalité équité mooy ñi nga xam ne tey les couches les plus vulnérables mu mu àgg ci ñoom efficacité aussi wala efficience moyens yi bariwul 69 milliards bariwul njëkk a tàmbali ci malades mentaux ñi nga xam seen xel dafa wàññeeku ñooñu dañu war a def benn waxuma recensement mais fexe ba seet leen fi ñu nekk ñu fexe ba yóbbu leen yóbbu leen ci ay asile ñu fekk ñu ne serait-ce que pour moment yi passé ñu mën leen jël en charge am na structure mais ay dal xel mais aussi moom accompagnement mais taalibe yi dafa am foofu euh, jiixi jaaxa tuuti xam nga état dafa jël mesure tëj école tubaab yëpp mais daara yi état mënu tëb ko parce que daara yi bari nekkuñ ci tutelle état beneen mbir am amna ci sëriñu daara yo xamni tay tey lañuy dundale seen talibé les couvre-feu bi ñew xalé yoyu tay nga bëgg ñu tok ci biir daara yi à partir de 19h30 jëm 20h dan yelwani añ dan wal yelwani reer dan yelwani ndékki léegi xalé bi yaa ngi koy bëgg mussel ci corona bi mais su moytul dina day xif donc fofu aussi yaakar na ni war na leen gën a xel parce que tey mënuñu recenser daara yépp li préfet Rufisque def tay ñi nga xamni tay ils sont prêts pour ñu accompagner leen yóbbu seen taalibe mun leen jël ah nañ leen delloo ñi nga xam ne am nañ moyen mën leen euh, confiner ñu mën leen confiner mais avec toutes les mesures d'accompagnement aussi yi ci war loolu foofu daal loolu lañ ci xalaat mais et puis am na beneen solution bu gën a jege au niveau des quartiers comme système de solidarité la ñuy wax nit ku ne xëy na nga daara mais su ñuy def kër gu ne yaa ngi reer wala ñuy reer su ñu jëlee tey ñaari miche mburu man damay jënd ñaari miche pour reer ma jëndaat yeneen ñaari miche yóbbu ko ci daara ji te la jënd. paquetu suukar yóbbu kële jënd mbuusu biscuit yóbbu kële jënd pot de xale yooyu même su doon dañuy poñse dinañ retrouver seen dignité cest à ko ko kooku et mënuñ sax mën nañ bañ xaar état mais dans les quartiers mën nañ ko def sa système de solidarité et puis du togg du lu diis jënd biscuit jënd mburu wala jënd tablette leen yóbbul leen wala jënd pain yu mel noonu loolu je pense que solution la yoo xam ni gis nga taal loolu mu def yaakaar naa ni eh, eh, soo koy jàngat da ngay xam ne kii non seulement doomu daara la mais koo xam ni tey am na sens du partage c'est-à-dire du moyen xol bu yaatu la am xam nga xam nañu maire yi amuñu moyen loolu mu def tey comme solution yaakaar na initiative bu ñu war a encourager la c'est-à-dire les maires des communes d'arrondissement mais les autres maires aussi mais au-delà de ça les élus mais beneen bi mooy les entreprises qui sont dans la région par exemple je prends aujourd'hui damay jël ñaari société wala ñett compagnie de téléphone yi ay Sonatel wala Free nit ñëpp a ngi toog seen kër yi ñom seen chiffre d'affaires da fay gëna yokk parce que ñepp a ngi connecté wu. mais dans le mais responsabilité sociétale d'entreprise nak fi lañ ko gëna soxla ça dit que ñi nga xamni tay les les entreprises riveraines par exemple Sonatel bi nekk Thiès espace communal bi la nekk mais nañu xol ñom aussi nuñ mëna duggal seen loxo ci yoy c'est-à-dire maire bi amna na mais mooy matul sa li lu rafet la mais du xena est-ce que dina mëna continuer ndax dina dem ba ci bir tay mën na am problème de ressources fekk tàmbali na ko ñëlee aussi mais tax il faut ñu xool beneen solution aussi soit nañu ñu autonomi autonomiser daara yi wut ñu leen jàppalee ba daara yi ku nekk di mën togg ci sa gox wala ñu xool beneen moyen boo xam ni tey mën nañ ko def pour que sëriñu daara bi ñu jox ko ndimbal boo xam dafay nekk directement pour sëriñu daara bi mais daara yi ñu confiné mais pas internat moderne yi yeneen maire yi aussi def ni moom léegi nag lii ñëw war a nekk loo xam ni ku ne da cee war a jël jàngat ci man maay kan c'est-à-dire euh, gën a defar sa taxawin ci penc mi parce que ni ñu gisee tey élan de solidarité bi gis nit ñi tey pratiquement ñëpp ngi toog ci kër yi confiné wu sa loolu mooy li war a am c'est-à-dire la discipline le respect du bien public le respect de l'intérêt général mais ba léegi gis nañ que ni ñoo xam ne tey amagul changement de comportement dañ ko jàppee rek ay fo c'est soo gisee li commencé am nii pratiquement surtout ces cas communautaires yooyu ko gën a indi moo tax état bi ak gën a foo xam ne tey war na àgg nii bul ni nit ñi toog leen si kër yi bu leen génn kër yi du wax toog leen ci kër yi la ñu war a àgg surtout pour certaines zone yi nga xam ni mi ngi fay toog leen ci kër yi nag dafay laaj ay mesures yoo xam ni d'accompagnement